Bismillah. كفارا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما su ma jàppoo ba pare damay yëkkati sama baaraam daa di wax ne ashadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lahu wa ashadu anna muhammadan حقه ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أسأل أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله العظيم ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونجيه قريبا يوم تكون سماء sunu yanantu hutettu binina ya ayyuhanna enni tubu tublen ilallahi jamsiyalla wastaghfiru deren jekkalu fa inni nakaman atubu danatu في يوم سمعة مرة دمريو سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيا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 xaara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ak la képp ku lu dagan ata dana topp yàlla moo xam mu nekk am kër wala mu nekk wa man ak la képp ku lu xaraam masallah dana mooy yàlla moo xam mu nekk am kër wala mu nekk nuyu ñooñ alxuraan yi teew fii di ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ni moom moo warlul ñuy jàngale alxuraan seenu fay sëñ Maxtaar mi yàlla na ko yàlla fay su ko defee man moom sax sama wax mën nañ ko bañ déglu mais maa ngi ñaan man damay wax te dem mais moo gën nga toog fu ñuy jàngee alxuraan te yow doo déglu ndax bu boobaa maanaam lala la cay topp ci ay daan nekkul ni yàlla moo la ko teg mais yow yaa ko teg sa bopp man sax man nit laa samay wax waxu nit la mën nañ ko bañ a déglu waaye daal képp koo xam ne yaa ngi toog ci jotaay bi te fas yéene woo bu ñuy xale yi di tari di jàng alxuraan nga déglu nga rocceeku woon dem mooy xaw su ko defee kii organiser yëf yi sama jarbaat la maag yaayam ñoo bokk ndey baay yàlla defit muy sama xarit nag moom xam na sama yitte su ma jógee fii oto baa ngi nii di ma xaar damay dem ba ndakaaru waaye mënuma ko woon romb ndax yonent bi sallallahu laa uqsimu bi haazal أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أولئك هم أولئك أصحاب أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسخمة عليهم نار مصرة صدق الله العظيم شيطان الرجيم بسم الله waaw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 إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنتفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فنضم الزبانية كلا لا تدعه واسجد واقترب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنينا تهتد بنينا من أقرأ كف كلك lekk lu dagal ataallahu na nga topp yàlla axabba moo mu neex am kariha wala mu naqari la akla képp ku lekk lu xaram asallahu dara mooy axabba moo mu neex am kariha wala mu naqari la كسرت وإذا البقار فجرت وإذا القبور بسرت علمت نفس ما قدمت وآخرت يا أيها الإنسان ما هلك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم suñu yonent bi ne ay mamraati bépp jigéen maatat faatu na wa zawjiha jëkkëram anhu walis ko raadi gërëm ko daxalal jannata mu dugg àjjana ku bari wax yàlla na bank waaw tabaarakallaa nuyu oustaz aaw mun teg ko ci loxo maam xaadim mbooj ñu jox ko maxtaar mu seddale ko gan yi xam naa bala may dugg nag balay benn xale dugg Mouhamed ndeysaan daara yi sëriñ daara yi kii moo fi représenté célibataire oustaz Mouhamed Mbaye mii toog waaw daara ju mag la yor waaye célibataire bu mag la waaw mi ngi nii amul jooy de

يسبحنا أن يسبحنا ساء ما يحكمون ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله فإذا أنذي في الله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 عرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف غاجفة تتبوى رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أن الأمر دودون في قافرا إذا كنا عظاما ناهرا قالوا تلك إذا كرة قاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي مقدس طوى اذهب إلا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وآتيك إلا ربك فتخشى وأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فخسر فنادى صدق الله العظيم xismaani ñaari xaal la taharatu xadas laabu taj wa taharatu xabasi ak laabu taq wala yasihu duñ wér aljamiu ñoom ñaar ñooñu illa bi ma ittahirin dara ci ndox mu la almutahiru ta mën a laabal woowa ndox ma xam ne lam yataxayar soppeeku lawnuhu ci melakaanu aw taamu wala ci cafkaam aw raayaqatoo wala ci ngarab bi maa ca la nga xam ne yu faariqoo dana tàkkalikoo moom xaaliban ba not ko ka zaytu lu mel nit di wasam ni ak nekk wa desami ak dax kullihi ñoom ñëpp wal wasaxi ak tilimu nit wa saabuti ak saabu wasaxi wal wasaxi ak tilimu njaay àll wa nax wi ak yunduroo yooyu wala baasadu ay bi ndox mu ànd wa xamaay ak ban wa sabxadi ak ceeb wal xasdi ak kew wa naxwi ak yu ndróog yooyu bu tedd bi nee na man ak la képp ku lekk xalaala lu dagan a dana topp yàlla a xabba moo xam mu neex la am kariha wala mu nakari wa man ak la kuy lekk xaraama lu xaraam asallaaw dana mooy yàlla a moo xam mu neex am kariha wala mu nakari tëb tëb tëb tëb oustaz aw dégg nga boole bi li mu wax. joxal imam. saytaani rajim bismillahi rahmani rahim lam yakun lilladina kafaru min ahli kitab wal musrikina mursakin hatta yawmul bayt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 والسفر والوتر والليل إذا يسفي هل في ذلك قسم الذي طغوا في بلادي فاقصروا فيها فسادا فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإنساد فأم صدق الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوى والذي حدى فهدى والذي أخرج المنى فجعل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت وذكر اسم ربه فصلى بل تبشرون القرآن دين جنب القرآن فإنه نقم يحكي دندك يلنا الخيام بزبط هوايب صفيان رم لأصحابي من الأمراض ما شاء الله عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنيناه فوقكم سبعا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يغفر يوم يوم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 والعصر والصف والوتر والليل إذا نفس هل في ذلك قسم الذي خجري ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يهل مثله في البلاد وثمود الذين جابوا السهر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذي تخوا في البلاد الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليهم رزقه ويقول ربي أهنني صدق الله العظيم أعوذ بالله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنه أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون تعملون أليس الله بكف عبده ويخوفنك بالذي من دونه ويخوفنك بالذي من دونه ومن يتق يضلل الله فما له من هاد يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نوقر في نقور فذلك يومئذ اليوم العسير على الكافرين عين يصير ظني ومن قلق واقلت صدق الله العظيم rajulu benn waay illa rasulullah di jëm si bi sallallahu alayhi wa fa qaala mu wax ñu yaa rasulallah bi man ahaqu naas kat moo gën a yell si bil xusni sahabati ma rafetal sama àndaar xaala mu wax ummuka sa ndey xaala mu wax ñu summa man topp kan xaala summa man topp xaala mu wax ñu ummuka sa ndey xaala mu wax ñu summa man topp ka xaala mu wax ñu ummuka sa ndey xaala mu wax ñu summa man topp ka xaala mu wax ñu su ummuka sa ndey xaala mu wax summa man abuka sa baay summa adnaaka topp ki gën a sës si nit ñi adnaaka ki gën a sës si nit ñi billahi mina shaytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحركما إن الله سميع البصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إنما كم إلى لأبولنهم وإنه ليقولون مقال من قول وزور عفوا وإن الله لعفو غفور بهذا وأيام أمر ما وقال لك بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءهم البينات بغيا بينهم إن ربك ليقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر أشركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمون لمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يكفي هذا يكفي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا الله الحي الحيوم ألف لام ميم الله القيوم نزل عليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم شيخ الخديم شيخ الخديم في كتابي جتير بتزود الصغار imaanukum seen gëm bil kutubi ci téere yi tasdiqun lu dëgg la bi anna naka moom inzaluha wàcce na ko xaqiqun lu dëgg la wa anna maa fiya naka lépp a ngi ci biiram maa mboole seen xaqun lu dëgg bila shakkin ci lu lu sik sàkka faman saddaqaha képp ku dëggal loolu naa la di nga am al ula kawe xanaduha seen lim xaddum téeméer ak ñeent la wayyaan ak fukk unta wàcc na ko min ci moom ala aadama ci aadam fii ma ca la nga xam ne xad sabat sax na nunun juróom fukk ala six sa di six sa ibni yi bari doomu aadama suma ala idris topp idris laamun fanweer yaawun ak fukk ala xili wilaayati ci xaritam la tawraatuha tawraat xadi tawa laq na ko muusa muusa injiluha injil xadi tawa laq na ko isa isa suma hawa topp mu laq zabuura zabuur daawud daawud kama tawa naka mu laqee furqaana furqaan almahmud bari yonanti ba xale yi yaa na nekk ci moom asalaatu julli wasalaam ak jàmm maa habbatum nem sopp rabu wara borom mindee fi asalaamu jàmm ni soxla anamu daa ludul ak njub attenliu na ngeen di soxla bil ulum sa xam-xam si moqal waccula ak man ka xam lay sal du dem di jaam di rabbi ñeel boromam xaayi di la ilaahu daa jëm si am di fa kullu man képp koo xam ne baadara gaawante nga waxta sena si waxtu ilaahu daa jëm si am di istiraax dina noppal waxta kibari si waxtu magam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 ومن كان منكم مريضا يسعرون صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 ألف لام أقثب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق الله العظيم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 إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والحمر رأيته لي ساجدين قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين يكفي هذا وإني أعزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين آه. وأعوذ بك ربي أن يحضرون آه. حال وحنا taalibullaaha aji sàkku yàlla wa rasuulu ak yonent bi arraji kay aji yaakaar minuhuma ci ñoom ñaar arida ngërëm la wala xubul ak nangu ko yuusi mooy dëggal muridatuhu muritam bu jigéen ba zawjatu ammihi kari soxnay bàyyi taxam Penda Diop ñoo ñooy wayi Penda Diop afarallaahu lana yal nañu yàlla jéggal walaaha te jéggal ko wa maqaana te mu foral ko wa anka te foral ko kullu zambim bépp bàkkaar wuxu ak bésub tilim tilim alayki dénk naa la bi sabri ci muñ wa taqwa rabbika ak ragal sa borom fi sirrin ci lu nëbb wa jërin ak lu feeñ fa yaxfir laki soo ko defee yàlla jéggal la duumi saxal ala tawbati ci tuub bijtihaadi ci farlu wala tamili tebul jeng li shuwarasaat jaamu kudul boroomu njub duumi saxal ala xumuli ci nopp watasaturi ak muñ wal tax fii di te ngay suufeel sawutaki sa baat dëhëran diiru jamono laa tunzur bul di xo dumuta xayyatan fi yaa ngi dund ilaa xayri lazi jëm ci li dul loo xam ne taxliilu ak daganam la xadin na jaali ràññeeku na wajtani bi wattandiku al aybatu jëw wa takabburi ak rëy wal asbiitu ta nga as sukuuta noppi wa tasabburu ak muñ wajtani bi wattandiku al kaziba fen wa riyaa ak ngistal wal ujuba ak dégg dégtal wal baxdaa ak mañeel wa asbiiti ta nga saxal a sidxa dëgg maal ixlaasi ànd ak sellal wa nusxi ak laabiir bil ixtisaasi ji ak sellal wala tarumi bul sàqu taatallaahi topp yàlla bila taami zawji julli topp sa borom kër attaxi kadi aji ragal yàlla wal taalami te na nga xam ni anna jihaatu niswa naka jihaati jigéen fii taati azwaajik mi ngi ci topp borom këram fa xaysuma zawjun sa jëkkër bu fekkee jëkkëram gërëmu ko radiya an zawjati yàlla yit du ko gërëm amma ida yarda anha su fekkee jëkkëram gërëm na ko abadan faaw bu fekkee jëkkëram gërëm ko nag abadan ba faw fa laysa yardallaahu anha sharmada yàlla yi du gërëmul wal taalami te na nga xam ni bi anna kullama dana nga gis loo xam ni sadara jóge na li xayri waji zil jaamu kudul borom nju fa hadara mook pëndayam faalami te na nga ni annahu da gis la faalami xamal ni laa yan juu du mucc ahadun kenn min azabillahi ci mbugalum yàlla xatta yatruka ndare dafa bàyyi arbaxata asiyaa ñeent yi mu lay limal alkaziba fen wal kibru ak rëy wal buxlu ak nay wa suu zanni ak ñaaw njoot shaytaane rajiim بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا الحبور بشرت علمت نفس ما قدمت وأقرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كرم الله تكذبون بالدين إن عليكم لقافزين كراما كاتبين يعلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله عزيز حكيم إن لو كفار لو أراد الله أن يهتج صدق الله العظيم سيدي سيدي سيدي عبد الرحمن عبد الرحمن أهدر ريكي بولم لهدر أول ما يجب لنجوك دوار على مكلم سي مكلم تصغير إيماني تغير غم يعلم ثم معرفة متوقع حمد ma laa xam ne yuslihu dina ko yeewalee bii ci moom fardaay ni fële day jëm kaaxaay solaati lu mel ni aatay wa tawrati allah wa siyaam ak koor الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير ما تصفقون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لنا من السماء ماء فأنبلنا به قضائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الله مع الله بل هم قوم يعلمون تعدلون صدق الله العظيم عبد الرحمن عبد الرحمن لا دري جبران لا دري إذا تعينت من رنجن تكون أن إذا تعينت من رنجن تكون أن جات الشبع مثلا غرغس مالو برب fa in tabasat bu leen tee masala naka raxas soobu yére ba kulloo léppam aman saka képp ki sik saka fi asabat na ñol sada na raxa naka wi fa in asaboo bu ko jotu say un darra saka sa lami sik sak fi najaasat soobu soot fala na rax alaykum mu ko wis man tazakkara képp ki fàttaliku an najaasat soobu woo watango fi salaat mi ngi si biir julli gi xataa naka dagg illaa an yaqaabu lu dafa ragal xurul fi waxtu génn waxtu man salla mu a fàttali ko baana salaam ginnaaw ba mu sëlmalee ah dina ko baam fii wax si biir wax bi. dama daan woo ba ma ñëw mu ne ma tànn fii bu la neex su ma nee ko tànnal ma ne mu daal yi ci dàq li ma xoolal bi digal. xoolal loolu moo fa dëgg yàlla te booba xamaguma soxnaam sax doomam doomam ji xamaguma ko. kon yow yaayam nga njëkk xam. yaayam la njëkk xam doom. macha allah. kon nag wax dëgg yàlla. kon sama sama implant ne ngoog. booy booy yow sama nijaay kontaan na ci moom. yi oustaz bu garaaw la. Oh, kii nag moom may jàppale ci daara ji. moom jàmbaar la ci daara ji lool sax. dinañ ko jox kado. moom lu ne rek lay dégg. des fois nga dégg ñoo waxal ci laay may nangam nangam. waaye lépp rek wax ko dëgg yàlla jàpp ci daara ji rek. lu ne nag da koy dégg ngir suñu jëmm ji ak daara ji ku bëgg alxuraan la. ba ne la waaye macha allah moom waaye salaam ba def. léegi moom yow yaa ko jox kado kon Maxta yaa jox laay. الذي أذهب عني هذا ونفعني Xaadim est-ce que sama doom bay yi dañoo jóge ba Touba ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen dalal di soxna Faama ak soxna Ndey bi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الناصية وجوه يومئذ قاسية حاملة ناصبة تسلى نارا قاملة تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع السرو مرفوعة وأكواب مردوة والنمارق مرفوفة وزرابين مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل ألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطقت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله عذابا أكبر إن إلينا إيابا ثم إن علينا حسابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وأثرهم وكل شيء أحصيناهم xaala wax na sayxi suñu sëriñ sayidi suñu sang abdirahmani abdirahman allaxdari kay borom laxdari fa yaxrumu dana xaraam alay ci mukallaf alkazibu fen wal himatu ak jëw wal namimatu ak rambaaj wal kibru ak wal kibru ak rëy wal wajbu ak aaw war yaaw ak ngistal assumaatu ak déggital wal xasadu ak soxor wal buudu ak meñeel war ruyatul ak gis nga ne alal xayri ci keneen wal hamzu ak regaju wal lamzu ak ngelaju wal habasu ak foo assuuriyatu ak reetaanaate wal zina ak njaalo wal nazaru ak xool ilal ajinabiyati jëm si jaamar bu jigéen watalas wala muy bànneexu bi kalaameya ca wax yaa xam wala kun wala muy lekk amwaal naas alal nit ñi dangay di ci min naf si lu teewi bakkanam suñu seen teewi bakkan wala kun wala muy lekk bi sabaati ci ramu aw bi diini wala ci diina ba taqaru salaati wala muy yéex a julli ana waxaatiha wala su waxtuwa wala yaqli dagan loo ñel ma kalam su xat faasixin ma ànd wala mu jaare su wala muy toogaa lekk moom dangay di daruratin ci lu mën na ñàkk wala yardu war a nekk mu suqati xaalixin ba mer laaji mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam di nuyu kilifa yi nga xamante ni bii ñoom la fekk ci jotaay bi ak ñooñ alquran yi nga xamante ni bii dañuy bañ a lim te duñu matal aaw lii ñu yor nag kaamilu alquran la da tudd léegi sunu jigéen sunu xarit ku ne xam na ni tey la di jot sax amul waaye Mamadou Seck ñu bàyyi lépp lu nu jàppoon ngir jëmmi yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ngir astu kase mi nga xamante ni bii tabax fakal la léppam Seyduna Muhammad la mu ànd ak une forte délégation ku ci mel ni soxna Kanku Diagne di présidente de la fondation Sopp Nabi di gaaye gaaye bu mag di taalibi Cheikh Sidi Aboubacar Sidi Fagi Demba mi ci jawaar waaye ñu ànd ak sunu yaay Adja Khadi mu baax mais toog di gànjool gànjool bu mag suñ xaadim damaa bëgg lii may wax nga ñëw taxaw ndax temps bi bariwul dama ko ci xaj xajal rek ajam na su kese mii ñu àndal moo dem ci dëkk bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax sa cofeel ci yonent bi xam na nu ko ndax ñun soppey naa Muhammad lanu ñu bëgg yonent bi lool waaye Pape Matar mi nga xamante ni bii moo woote tey di kenn ci moom di mbokk ci moom di xarit ci moom di soppe ci moom di wëllëxe ci moom waaye soxnaam su baax seetoog nga xamante ni bii mooy soxna Ndey si Cuun mu ni yàqu ci dara léppam mu jël ko jagleel ko ko waaye dend ak ki nga xamante ni mooy way juróom bu jigéen bee di soxna Gagne Siré Dieng mu ni ko bés bi dama la ci def invité d'honneur mu ni comme bésu alxuraan la te amoon lu dul alxuraan ak yonent bi kaamil bi dana koy woo mu ànd ak soxna Kanku Jaañ ak Adja Xadi mu jël ko jox ko Pape mu jébbal ko ki nga xamante ni bii moom moo jël raw gàddu gi ci tari alxuraan bi kon nag moom la ñuy woo soxna mu ñëw soppeb Seyduna Muhammad bi soppib Cheikh Seydi Aboubacar Seydi Fagui Demba mi ci jawaar bi bakareeg dara maan aram loo maam Kumba ci amal ngañ penda ak pàcce penda ak bukkuma penda xar yàlla des foofu coor moom la ñuy jox ay jëf seen mbay. مقامات خير خلق كسب يا رسول الله مقام bëgg daw safa ak marwa jugal taxaw ca ko ñu màggal yaa rasulillah maqaama maqaamaatu xayril xalqi maqaama ku sopp muhammadu rasulillah maqaama غيابة فلتقران سورة النجم محمد المختار لا خلق لا خلق لا خلق مثله بني يلا دؤت لكم سيدنا محمد لا خلق مثله لا الخلق مثله عليه سلام ما من كل naa ne foofu kon maa ngi leen ñaanal képp ku ma déglu yàlla la sa mborom taxaw sonaas base jërëjëf kado bi rëy na si ñun lool waaye man nag yàlla dama nattoo bi may jàng nekk ci daara ji sun boroom saa wajuru góor daara ji ma yóbbu woon ma fay jàngee ñu déglu sëñ li may wax dama ñor da ngeen saa waju góor daara ji ma yóbboon ma fay jànge muy daara yi Baye Mbeng yàlla daa dogal Baye Mbeng nekkoon mag waaye bi ma dikkee dama jébbal jëmm ji man bi may jàng alxuraan xale comme boo yi ni ma leen di jàngale nekk seen morom nekk xale man xale moo ma doon jàngal maanaam nekk xale boo xam ne yaram wi tàngoon lool nag alxuraan moom daanu la ci may dara kon bu teewee fii ñu jox ma kaamil man ñemewuma koo jël ndax lu ne ci man moo ko def mooy Seydina Alioune mii yéen la waxal des fois nga dégg ñu naan booy seen ustaas bi daanaka booy la man ba may jàng ustaas ban ma boole doon mu may jàngal alxuraan booy la ci xayam billaahi fer ijji lii ñu naan fer ijji maanaam maa ko gën a mittile ci àdduna fi ma jaarale maanaam yoo xamante ni kéemaan la moo xam na man xam naa daanu may dara kon nag maa ngi koy ñaanal ci barke alxuraan lim ma loon ba tey jii lii lépp ndamam la moom kon su ko defee kaamil bi Seydina Ali dama koy jël jébbal la ko di ñaan sun borom taxaw la taar la barke alxuraan karim kon bismillah Allah ndeysaan auzu billah inna waliyallah wa ma tawfiqa soo mbokki ustaas yi sama mbokki seen daara yi fi nekk ñu ngi leen di bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ziare si bis bu màgg bii te di leen ndokkeel coono bi nga xam ne si làmb ngeen ko si xale yi ak si wax ji di ndokkeel eh, waajur yi sëriñ Matar ñi fi nekk ak sëriñ Matar bu baax a baax ah lii nag suñu ndam la ñun sëriñu daara yi ñun sëriñu daara yi jàngale lii suñu ndam la maanaam. jàngal nit ba mu toog di jàngalewaat nga ñëw fa muy toog di jàngalewaat loolu ndam la ah mus te mënumaa am ndam lu gën a rëy ndam lii wax dëgg yàlla moo tax ba ma ko waxee yàlla xam na ne mbuur laa jógee si daara ja waaye damaa bàyyi programme bi yëpp yëpp yëpp tey ñëw fi wax ndax ah, xëy na bis bi defoon na ko woo ma si daaw mag ma am ngànt lu rëy lu ko téye woon ren jii nag ma ne ko lu ngànt rëy rëy dinaa ko bàyyi ñëw si waaye nag wax dëgg yàlla su ma soñoon ma am ñu mel ne Pape Matar ay téeméeri téeméeri téeméeri mel ne moom ndax kii jàngale alxuraan yaakaar naa bu sañoon ah ñu mel ne Pape Matar rek lay ñoom lay jàngal jàngalee ba nga pare beraat jàngalee fi doon yi Pape Matar kum jàngal koo ko jàngalaat koo ko jàngalaat wallaay yool ba dama say am. moo xam mu fekk ma ci kaw suuf moo xam fekku ma si kaw suuf loolu nag oustaz bi nekk ñoo ko gën a xam kon loolu mbégte la ak cant la ah xale yi dégg naa tari bi ba ba tari bi tàmbalee ba léegi maa ngi fi maa ngi déglu tari bi maa ngi déglu njàng mi maa ngi déglu làkki arab yi yëpp waaye masalla set na rafet na wax yàlla xale bi bi doon tari di di di di ñu dafa am lu mu ci wax Aba solo hadis bi mu ni képp koo xamante ni da nga laxas dem nga wëlbatiku samp daara di jàngale alquran ne moom mooy borom daara ji te borom daara ji dafa yëkkati kaamil alquran bu ko terale teralewaat ko sëriñam alhamdulilah moo bëgg ñun ñi xam ne ñoo fi nekk ñu jëlaat teraanga ci suñuy teraanga jàppale Pape Matar ci ci sëñ daaram waaw ah, ndeysaan man sama bopp laa koy tàmbalee bu ko defee. loolu bi ñu woon sama xel wallaahi. bu ko defee am nga ah. sëriñu Pape Matar ñëw na fi ñu jox ko cadeau nii alxuraan moo ëpp lépp waaye nag war nañ koo jox njëgu gasoil. bismillaahi rahmaani rahiim السماوات وما في الأرض وهو علي العظيم كقار السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربي ويستغفرون لمن في الأرض الله إن الله هو غفور رحيم والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليه وما أنت عليه بواكل وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في جنات وفريق من السير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمين ما له من محيص أم اتخذوا من دوني أولياء والله هو ولي وهو يحيي موته وهو على كل شيء قدير وما يختلط فيه من شيء وحكمه إلى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقلد السماوات والأرض يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مننا وعن أبي عبد الرحمن يونس أبي عبد الرحمن عبد الله المصوم عبد الله المصوم رضي الله عنه كان كيال دوني قال وانا سعد الله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 والذي قدر فهدى والذي أحرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنشى إلا الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم خلق من توكى فذكر اسم ربه فسوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة حياة wa سبح لله ما في السماوات وما في الذي هو حكيم يا أيها الذين آمنوا لما تعودون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحبون الذين يخاطئون يخاطئون بسبيل صفا كأنهم دنيا مصون إذ قال موسى لقومهم لم تؤمنون وقد تعلمون إني رسول إليكم فمتى أراد الغلب ولا لهم فاتح وإذ قال كتاب مريم يا بني فعل إني رسول إليكم متعنعا بين يدي من توبة وبسر رسول من اسمه أحمد فلما جاءوا بين قالوا هذا تأثير مبين ومن يسمع تاريخ أنه لا كذب وهو إله الإسلام قل لا إله هم ذلك يكونون بهم قل أن نوت النور وقال كافر هو الذي هو الذي أنت تطلب به ودين حق يدعو الذي كل وقال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم يا أنت تبنانا عليكم من تعلم قرآن من القرآن وهل jigee ko lool ndax ndaw la bi ko yàlla mayee teere mënoon na cee dëkk wala mu xalaat ci leneen waaye mu ni dama koy def daaray alxuraan woo imaam yi nekk ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu dajaloo ñëw teg première pierre bi loolu defe naa lu rëy la loolu nag ñu ngi la koy seereel mbàkke ndax yow lépp loo xam ni rek def nañ ko ci bis bi ah yow lañ ko defal ko waaw tariwul waa loolu day am munta ñàkk njuumte la rek kaay noo tudd kaay yéeg والنازرات نسرا فالخارقات فرقا فالملقيات ذكرا غفرا أو نذورا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمسا وإذا السماء وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفتت صدق الله العظيم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 wa yi fi toog sëriñ daara yi bokk dañuy wax tuuti ci maxtaar rek ñu ñoo bokk liggéey bi daara lay jàngale may jàngale daara amaana nag bi ñu xamante yàgg na yàggul mais man ak moom sëq nañ loo xam ni yaayam mi ko jur sax xam na loolu kon nag dañuy ñaanal Matar yàlla na ko yàlla jàmm ci mu bëgg daara ji yegg fa yàlla na ko fa yàlla yeggale ci barke Seydina Muhammad ku baax la wasalaamaaleykum. defee naka su dul noonu rek ëllëg mën naa métti ci lool kon nan teewlu te bàyyi xel bu baax te déglu kàddu sëriñ bi su ko defee mu jàllale kàddu yi su noppee mu ñaanal mboolem ñu yeewee ko bis bi nag ñoo ngi ko duppee Cheikh Abdourahmane Mbacké amul perene amul kenn kun koy ndayale baa ñu koy bàyyale sëriñ bi mooy baay bi mooy ndey ji mooy maam ji mooy lépp kon nag bu fi njabootam teewee wax fa loolu moom mbégte lay noonu nekk ci ñun kon nag nan teewlu te cellantu ñu jox sunu sëriñ sëriñ Cheikh fay di magum daara nekk ca Daaru Muxti yor fa daara bokk ci ñi nga xam ni sëriñ bi ku leen bàyyi woon xel la nekkoon fa imaam ba léegi yàlla ko fa yàlla saxal kon su ko defee dañ koy jox kàddu gi mu jàllale kàddu gi suñ noppee sëriñ bi ñaanal mbooloo mi ñu yeewee ko ba beneen yoon mu mel ni waa daara ji incha allah samedi bii di ñëw la ñuy dooraat njàng mi ndax ñun moom amuñu feet daanaka bala ñu am feet moom daanaka mooy sunu kii rek waaw feet kon amu fi samedi bii di ñëw rek incha allah la ñuy dooraat njàng mi incha allah si la ahas billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmanirahim wasalatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina umarana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xaddi wa ummatihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu sell ci islaam nuyu bu sell ci lislaam muy góor muy jigéen di wax nag ci turu si Abdul Xudus miy toog di doomi sëñ Abdourahmane Mbàkke radiallahu anhu ñu ngi ñaan yàlla yokk yërmandeem yokk ak leeram yàlla fay ko yóbbu ko ca maamam ja mu yóbbu ko ca borom Tuubaa yóbbu ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tàbbaleen ajjana ak képp ku ko yéene ginnaaw loolu ñi ngi sant sëñ Maxtaar mi ndax ku sonn ci njàngale ca diir ba mu nekkee Daaru Muxti ñu xam ko ku bëggoon lu baax la teewutit bi mu ñëwee fii loolu la continuer sëriñ Abdou Khoudous di wax ni lii sëriñ Maxtaar def day soññee ci téeréeb yàlla bi ngir ñu gën cee taxaw temm ci saxal ko jàng ko di ko mokkalal xale yi te leer na suñ borom ni donte ko woon xale yu ndaw yi ñuy jàngal alxuraan àddina bi suñ borom taxañ na ko bu yàgg ndax soxlawul dara ci àddina bi ba tax mu ni xayrukum man ta'allama alxuraan wa allama xayruhu ki gënc ni ñu mooy kiy jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale ngir yàlla waaye ginnaaw ba it kon ka gënaat ci mbindéef mooy ñi nangu seeni doom di jàng alxuraan kon ñoo ci gënaat kon kuy jàngalul sa doom alxuraan xamal ni ci ñi gën ci suñ borom subhaanahu wa ci nga bokk ginnaaw loolu it ñuy ñaanal xalifa sénéro yi sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér ak xalifa tiyaan yi ak xalifa baay faal yi xaadir laayeen bàyyiwuñ kenn ak képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah ñu lay ñaanal yàlla defal la tawféex nga yàgg fi te wér yàgg taxawee diine bu dee ko jiitu ñi ngi ñaan yàlla mu woyofal suuf ci kawam te tàbbal ko aljana ci barkeeb alxuraan di ñaan yàlla yit ñi fi teew ñëpp seeni doom yi ñu dugal alxuraan lañ te yéene yàlla defal leen ko ban kawee seen njort ban bokk ci ña nga xam ne ëllëg yawmal xiyaam dañ leen di wax ñu tàmbalee tarixul ansab naa si jëm kaw baat bu ñu wax rek suñ borom yëkkati leen ko am néeg ci àjjana ba kër ñuy àkk ci dem sallallahu yàlla na ko yàlla boole ñu ñëpp muy waajur yi yu góor yi ak waajur yu jigéen yi ginnaaw loolu nag ñuy wax ni sëriñ maxtaar mii sëñ bi mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci tur wi mu tudde sëriñ abdourahman tari bi ak daara ji di ko xamal ne nag dañuy eh, yeesal yéen rek waaye sax liñ bëgg a wax lépp mënuñu ko wax ci xol bu sedd ngir amuñu pour sëñ Abdourahmane Mbacke te ko xam sëñ Abdourahmane xam ne moom alxuraan rek a ko ñoroon ak diine ak xam-xam mosu ci wax leneen du loolu xam-xam ak diine rek kon loolu bu ko sëñ Maxtaar mi defee mi ngi aw ca tànki yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamante ni moom la fi bàyyi woon muy jëmale islaam kaw jëmale islaam kaw nag ku koy def dina mett lool ndax daara xam nañ ko ay moyam dafa jafe lool te métti ay coono rek ngay jànkoonteel ñu wax ni day mel ni day jàngale di fayu ci misaal waa dañ koy tuddee noonu rek ñu laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ko lan moo gën ci fayu mu ni ki nga xamante ne day jàngale alxuraan di ca fayeku nee na loolu moo ca gën waaw mu ni lépp lu nit di fayeku di jàngale alxuraan ñu lay fay moo gën day nuru fay rek waaye alxuraan ni sëriñ Tuubaa waxe kenn mënu koo fay sax da ngay feeñal yéene rek ndax benn araf rek nee na junniy dërëm fayu ko wala boog moom lay koy màndaxel kon bu ñu la woon baa nga joxe junni ñu la siin nga joxe junni ñu la miim nga joxe junni alif nga joxe junni laam nga joxe junni laam nga joxe junni alsaqeer wala hoo nga joxe junni kooku yaakaar naa kon di nga bari xaalis waaye nag fay gi ci yàlla diggee gi ñu nit ñi di jox ak donte neex na kon loolu bénéfice boo xamante ne jàngalekat bi moom lay am ca foofa suñ borom di ko ko fàggul moo gën fuuf liñ koy jox fii liñ koy jox fii nag suñ ko ko joxee ngëneel la ndax ki koy joxe yàlla da koy fulal moom mi mu koy joxit yàlla da koy fulal kon day mel ne fay gi nga xam ne moom la nit ñi fay yàlla da leen koy fulal ñoom ndax alxuraan jin ko def ndax ëllëg kat mi ngi ñëw waaye dërëm boo am dana laaj dërëm bii ba nga ko amee foo ko dugal sama dërëm ci alxuraan laa ko dugal nag yaakaar naa ci la xéewal yam kon yàlla na yàlla xéew ci ñuy dugal suñuy alal ak suñu wax ak jëf ci alxuraan kon loolu dañ doon feeñal yéen rek ndax sax moom wax ji yépp suñu ustaas yii fi teew wax nañ ko muy addis wax nañ ko muy alxuraan xale jàng nañ ko mënuñoo waxat wax ju gën alxuraan wala ju addis yoo xamante ni suñ ustaas yi wax nañ ko xanaa dañuy waxaat rek di sant ka santaat rek a ah, sukkur moom sant day sant dangay sant ka santaat ak sant rek waaye sukkur rek lay nekk kon ñi ngi ñaan yàlla suñ boroom képp ku fi teew yàlla na yàlla def barkeb alxuraan ci sa dënn ba lépp loo yóotu nga jot ko yàlla musal ñi ci saytaane ak lu yàq ak lu yàqule ak musiba yeeg balaa yi yàlla fegal ñu ko ci daraja alxuraan di ko ñaan ci képp koo xam ne teew nga fi muy góor muy jigéen muy yaay wala muy baay wala muy xale buy jàng wala bu jàng ci lépp luñ fi jàng rek yàlla dugal ko ci ñu xol ba mu jariñ ñu fegal ñu ci barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñu ngi jéggalu ñëpp nag ñuy jox sëñ bi kon mu ñaan su ko defee sëriñ bi joxe ñaan ñu yewee ko ba beneen yoon maa ngi sant nag bu baax sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo doon togg xéewal yi di suñu yaay Xadi Njaay soxna Awa wax fa dëgg yàlla di ñoo xam ne mënuñu leen a waaye ñoo ngi sant it soxna May ak soxna Fatim ak ndeykan ñu ngi leen di sant bu baax ay jigéen yu baax yu nekk ci koñ bi la waaye wax fa dëgg yàlla ban fi dikkee ba léegi yor fi daara dañ ñuy jàppale ci zahir ak batin waaw ndax ba ma fi dikkee ba léegi soxna may mi nga xam ne mooy jaay ndékki yi ci suba gi daanaka dane ma yow moom sam ndékki maa ko amee te loolu wax fa dëgg yàlla tawfeex la si ñun soxna Xadi Njaay it mboolem daara ji bu seetee jëm moom la moo koy defar moo koy toppatoo lu war ci daara ji moo koy def soxna Awa it mboolem loo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo ci daara ji suñ koy santaane sunu soxna du si yóti soxna Awa moo koy def kon ñoo ngi leen koy ñoo ngi leen di ñaanal ñooñu nga xam ne amuñu seen fay waaye ñoo ngi sant mboolem tamit koo xam ne jox nga nu sa doom ngir ñu jàngal ko ne ko suñu léegi rek daanaka ñun buñ dikkoon samp daara te gisuñu kenn duñ jàngal kenn yi kon ñoom ñi nga xam ne ñoo leen ñoo jox seen doom ñun di leen jàngal ñoo amuñu seen fay ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di sant ñëpp rek boroom rajo yi ñoo ngi lay sant ñu doon jàpp ci liggéey bi it ñoo ngi leen di sant bu baax a baax oustaz aaw euh, sëriñ xaadim mbóoj wax fa dëgg yàlla ci suba gi bi ñuy teg pause première paire bi ñu nag ñoom ñoo ko ànd oustaz Makhtar Seck mi xam ne moo yor rajo kon ñoo ngi leen di sant bu baax kii filmé sëñ bi maa ngi lay siyaar bu baax di la sant boo photographe maa ngi lay sant maa ngi sant ñëpp daal di sant suñuy waajur sant ñëpp rek kon su ko defee ñu wax amin fu waay tollu sëriñ bi defal ñaan yéwén ba beneen yoon ñu dugal ci ajo yi nag amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amin ya rabbi amin um, um, amin amin ya rabbi amin amin amin amin ya rabbi amin amin ya amin amin ya rabbi amin